salaamaaleykum mbokki internet yi seetaan Télé Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen euh, jaajafal dellu siwaat euh, seen rendez-vous du mercredi moo di les grands angles de euh, l' tey nag ah, dañoo déplacé wu ñëw seeti koo xamante ne ci wàllum chronique ak waxtaan wax ci wàllum politique daanaka xam-xamam màcc na ca lool mu di Saa xam ngeen ko ah, mu di koo xamante ne ci wàllum yoon ak yoonal rawatina ah, la nga xamante ne moo laale Ousmane Sonko da ci daal di yëngu ndax moom bokk na ci euh, mouvement bi nga xamante ne euh, bokk na ci ñi euh, àppal Ousmane Sonko tey nag moom lañ nar seekal waxtaan xam ngeen ne Cour suprême ci ajuma ju ñu génn daal di nay jël ndogal daal di dakkandi la nga xamante ne juge Sabassy Faye jëloon na ko ginnaaw bi nga xamante ne waxoon na Ousmane Sonko nañ ko daanee woon daal di jël turam ñore ko ci liste électorale yi loolu dëppoo ak yoon bi nga xamante ne moo na koy dakkal donc beneen àtte mooy daal di amaat bi la yoon nag fi nga xamante ne moo di cour euh, tribunal bu Dakar plutôt dañ koy daal di amal Bassirou Diomaye mu ñu tab mu nekk euh, candidat bi nga xam ne moo war a wëyal ci biir euh, wala ci ci turu Pastef li nga xamante ne moo di parrainage yi itam daanaka jamono ji jur na jur na lu bari ndax leneen ak yeneen i dossiers itam ca biir bosu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang nga xamante ne ni ki tey la waroon nañ cee sëgg waaye yooyu yëpp dañ ko daal di ajandi donc lii lee danañ ci waxtaan ak moom saa gëju naa la gis nag maa ngi lay nuyu di sant bu baax a baax lay ziar di leen dalal. merci beaucoup nuyu ñi ñuy seetaan di ñaan yàlla yaatal ñuy dënn. Mhm. leeral suñuy làmmiñ ba lu ba lu wax ñu man ci jëre njariñ tey nag moom xam nga. <laughs> démb sport bi daa sax. daa sax waaw gëjoon na def cours bu ma gëj def. Mhm. te bu may def combat moom damay xaabaabal. <laughs> def ba def mais mais taxawal Elisa wax di wax combat nii ba li ngeen di waajal da ngeen di jàpp ne la. dina dafa am benn concept gym bu ñuy wax body combat body attaque. Mhm. comme man budoka laa woon damay doon def Krav Maga léegi euh, délégré euh. léegi damay def gym su hmm. may dem nag euh, kii laa gën a taamu quoi combat combat concept la bu ñu def nii nga xam ne hmm. da nga sànni say loxo même technique combat yi lañ lay kii hmm. ak yu deme noonu mais day tax bu fekkoon ne doonoon nga doon def kickboxing wala Krav Maga wala karaté wala dara da jàpp loxo sax fa. Ah, waaw maanaam ah, dootoo kii dootoo gaaw a bàyyi daal voilà dootoo gaaw a bàyyi. mais est ce que est ce que du esprit boobu yow moo la animé tax ji ba euh, ni ngeen xamante noonu ngeen di jàppale Ousmane Sonko yéen façon fas yéene wala cee euh, dellu ginnaaw. waaw non bu doog kaa booy xam nga man daa am daje ci man yoo xam ne comme daje ci yow bon doo doo doo seetaan kuy tooñ. Mhm. man sama maam ji jur sama baay may mun a faal. Mhm. garmi la ceddo la moo ma yar. ci yarin woo xam ne ku jigéen ki nag la wax maa ak li nit ñi wax naan ay yarum maam day yàq wala dara hmm. sa maam daanaka da dese woon na kàttan ba bi muy faatu hmm. nekkoon ah, politicien hmm. nekk mbuur ak yu demee noonu mais daf ma daan yar ci ma kenn yërëm maanaam lu ma kii lu tax may dox di xool ñu may yërëm bu ma fen même bu doon day fekk ñuy nàngam moo tax mujj na loo ne maa ko def su ma taxee na man la dana xam ne bu ma du man day xam ne du man bon ak yar la ci dëggu yar la ci spirituel do quoi loolu bañ la dèjà loolu beneen beneen kii beneen même sama papa tamit noonu la ko yare noonu la ma yare mais bi may tànn nekk gone dama bëggoon a dem armée ñu bañ ma tànte naa naroon a nekk fàq maan bi may nekk xale xale bu tuuti di quinze commencé di moonoon di fooye kii ba li ñuy wax li la yàlla kii ma fàq mhm. àndoon ak samay yenn moroom far am benn soccet fii di jëree jëree lukaa buddi ko buddi ko affaire bi neew yi loolu moom delloo suñu kër boobu xale bu tuuti yaa ah, koo xam ne matu sax def yenn yi laa de effectivement maanaam nga xam ne mais dama ko teel a bàyyi nag dama ko laal rek. <laughs> génnaat ci moo gën <laughs> daal di bàyyi. <laughs> bon mais mas naa di am nañ teg benn takk ma ne man ñaari sumé laa soit ma nekkoon soldat wala ma nekk euh, bandi wala ma nekk activist te benn bi. moo tax luy rek mosuma ko wax kenn. moo tax ma nekk hmm. euh, activiste xam nga yéen moom parfois ngeen laal nit. waaw mais da ciy baax mais da ciy baax aussi ah, ñi ñi ah, xam. saa ah. euh, lan moo ko tey lan moo lan moo ko defar ba sénégalais ñu ci bari. sopp ko di topp ay waxtaanam. ba pare esprit budoka bi defar na ma. Mhm. tax na ma daal parce que man dama ëppal. même ba nëgë ni sax ci wax nii. Mhm. bon mais sama ëppal yëpp. damay contrôler sama bopp. effectivement parfois kuréel yi nga xam ne ñoom laa jiitee muy kuréel yi yenn wolof yi affaire culture ak yooyu. Mhm. am na ci ñoo xam ne sax duñ bëgg may fës ci politique bi. Mhm. parce que nee nañ yenn saa yi ma gars yi tàncee ni may <laughs> réagir noonu mën naa def erreur mën naa nangam mais. Mhm. foofu laa fooree. parce que mayu yàlla la. xam nga nit mën na bar. ba pare kii du tee nag saa yi may dugg ci émission damay léemu sama léemu ceddo yi ndax lépp suñu borom moo koy contrôlé moom laay dellowaat ak yooyu beneen bi mooy man ma euh, jàng sama diine mhm. jàng mboorum yonent bi mooy histoire am siira mhm. jàng saxaaba bu mel ni Omar man tey su ma doon ci yonent bi bu doon da ngay tànn entre saxaaba yi nangam na mhm. man ab Omar yu laay doon parce que noonu la ma yàlla bindee même ci fi ma dëkk xam nga damay faral di wax nit ñi buñ naan par parloo <laughs> ma ne leen par parloo par parloo moom yàlla suñ borom laa ko defal mhm. suñu wax yàlla suñ borom da ngay gëm yàlla mu ne nga gëmal ko malaaka yi gëmal ko téere yi ak yonent yi doo ci sa exception nang aucune mhm. loolu yëpp fa dugg moo tax lu yàlla wax dama ci parparloo du ma xool lii la wala laa la mhm. loolu laay def sama kéem kàttan far nag sëñ Touba laa ko defal te li may far far ak sëñ Touba far comme ku far ci parti li doxut sax. Mhm. da ngay gis ne li mhm. da nga ciy sañ a joxoñ baaraam maanaam man tey même bu ma toogoon tey dara. xew ci murit gi wala ma gis ko ci sëñ bi te àndut ak sama gis-gis dama naan li àndut sama gis même bu fekkee ne yàqalu ma wéy di ko topp. Mhm. dama koy dénoncé wala ma kii ba pare tout temps di ko topp. su ma demoon ba doyatuma it bu subaa waxuma sax sëñ Tuubaa mais l'islam bi ma nekk ma doyatul woon bu subaa ma dem nekk euh, juif wala ma nekk leneen bu dee loolu moom ma gën a doy mhm. loolu mais féete moom mhm. laay def nit ñi léegi d'accord far moom sëñ Tuubaa laa ko bàyyi mais féete mhm. laay def ku nekk féete nag moom Oh, ndegam fi nga far sax boo gisee lu dul noonu da ngay taxaw da dàngam waxuma laa fa ngay féete. d'accord te sëñ Touba it da ngay jàng histoire am xam saa yu may gën a dund dama koy gën a fonk. Mhm. parce que yi ñuy wax ni yëpp yu baree bare yi ñuy wax tey daf ko gaaroon. Mhm. nit ñi nag ñoo jàngul seen histoire ba xam lan ak lan moo amoon mais mu murid dañ leen doon persécuté. Mhm. ñii di perte seen ay ndomba tànk. ñii ñu leen kii ba ñuy exilé. comme ku si mel ni sëñ Touba Cheikh euh, Anta Gaawaan ñu mm-hmm. bare bari ñoo xam ne loolu li ko defoon mooy mm-hmm. jëloon système bi bëggoon a euh, euh, xare wala xeex ba faagaagal ndameel bi fi fedeer bu tombeeloon muy Makoddu fa la problème tàmbalee diggante Kajoor ak tubaab bi mais tubaab bi masul ñemee dugg Kajoor tubaab bi jóge na ci fi ñu nekkoon xam nga tubaab yi ba ci côté waalo bi lañ gënoon a nekk. Mhm. ak ci booru géej géej yooyu mais kajoor moom daawuñ ko waate dameel la sukaabe toog na fii benn tubaab suñ daan naan ci kajoor pour seen jur naan wala seeni fas nangam. Mhm. dañuy tàggoo te dañ daan fay. dañuy ñëw bindu at mu jot ñu fay mhm. nangam ngir mën a sàmm seen ay nangam wala seeni fas mën a nangam. am tubaab bu dugg laal dara lu toll ni taar fatal ay ni lat sukaabe jàpp tëj ci kaso bi. dañoo négocier dañoo fay mu doog leen a ba mhm. biñ ñëwee ba ci maanaam ku ñuy wax dammeel ma ko du lii yaa ngi nekk ay 1860 fi la bi di doog a. d'accord lu ma neex mooy say say suñu jàkkaarloo da ngay da balaa ñuy sax dugg ci waxtaan da ngay fàttali quand même histoire li nga xamante ne tey sénégalais yu bari. xëy na war nañ ko war nañ ko di xam ndax quand même c'est notre fierté ça fait partie ah. de notre histoire suñu ay maam ñoo ko ah. ñoo ko fi bàyyi. Ah. léegi nag sànq ci say ci wax yaa ngi wax boo naan juum euh, pour quand même laal un peu sujet bi Imam Omar euh, daana am na foo xamante ne laal na fa ba ñu dafa juum ñu ne dafa juum li nga xamante ne moo euh, daal ci kawam ay plainte de la communauté Euh, Tidiane. par rapport ak dossier boobu noonu yow euh, euh, ban jàngat nga ci nga ci def. non dafa tooñ te amul sens comme ni ko sëñ Babacar Mboub di waxee kenn ku nekk fa nga nekk. Mhm. am nga suffisamment d'éléments yoo mën a défendre lu baax loo fa mën a wax. Mhm. ba nit ñi sopp ko walis ngay dem di xas sa morom wala di ko dëkkal foo dëkkul yow ci yàlla ngay woote. Mhm. yow waxuma ku nekk chrétien sax war naa bañ a nekk sa problème. waxantuma laa ku nekk jullit comme yow. bon du tee nag li dul yoon nga taxaw dénoncé ko dénoncé ko mais boo koy dénoncé di kokkali euh, euh, amul sens ci ci ci mag xam nga surtout nit euh, xam nga ñun dañoom am problème mu boo amee sikkim ak yu dem dafa am yoo xam boo ko xasee bu la yàlla bindee noonu da ngay def yëfi ku kàllafe mm-hmm. mais ànd ak loolu yëpp nag dañ ko war a teg ci yoon mais waruñ ko tooñ mm-hmm. man xam nga li may gën a ñaawlu ci Sénégal mm-hmm. mooy garde à vue koo xam ne dafa def lu flagrant nit ñëpp xam ne nii la ñëpp xam ne nii nañ ko taxawal beneen bi mooy bi mu ko defee ba pare wax na ne gis nga mag mu taxaw. Mhm. def nangam ba xam ne lii mu def ëpp na wala fi mu laal ñu wax ko mu ne waxuma fii lii parce que problème bi mooy am na yeneen beneen image bu doon gis boo xam ne du Sénégal ñuy def. Mhm. méthode boobu yi de kan moo ciy def noonu kenn defu ko ci. ñu ngi def ko ci. bi ma doon gis boobu ci lañ koy def. Mhm. mën naa am lool la mais même bu dul loolu. gis nga booy wax ci yow di gi mu ko defee. man laa d'accord. mais bu fekkee dafa def benn fait c'est flagrant nañ ko woow mu comparer parce que problème bi mooy bu fekkoon dañu naan sax sécurité moo tax ñu téye ko wala dara foofu. Mhm. mais ba mu ko waxee diggante bi yàgg na bu fekkoon ne kiy mer fekk nga ko door ko wala nangam nag mais loolu amul. Mhm. kon nit ñi dañ leen a war a fexe ñu civiliser. Mhm. maanaam ni ñu leen a attee ni ñu leen di jàppee civilisé ni ñu leen di àttee sax civilisé mais ni ñu leen di jàppee. wala ni ñu leen di indi moo commencé di mal civilisé boobu amul benn sens. Hmm. d' accord ma ak Omar Sall mais d' accord ma ak ni nga xamee ne lu franc la beneen bi mooy li mu wax nii. Hmm. am na ku wax lu ko gën a garaaw fuuf te kooku ab tijaan la nee na ab tijaan la. muy euh, Ibrahima Aydara Serif Ibrahima Aydara ñaari at ci ginnaaw xaw man euh, at ak nangam fii la to di def waaraat ñu ne dañoo dugg këram sàcc kili moom xaw ma lan mën naa am loolu dëgg la wala du dëgg moo xam. Mhm. mais mu taxaw giñ ko wolof yi naan wolof rek mooy sàcc wolof rek mooy fen. Euh, xaal pulaar yi dañoo diiñ nee na moom naar la yaayam séeréer la waaye xaal pulaar yi dañoo dañoo dañoo diiñ séeréer yi euh, yi fi baax sax xaal pulaar yee tax ñoo baax. wala fay sàcc mooy fen ne la race noire mooy li gën a yées ci àdduna Afrique fii ñi fi développé mooy pays Maghreb yi ay waxam laay wax de. Mhm. pays Maghreb yi soo demee euh, Amérique noir yi ñoo fa gën a torox mais lii ku ko wax ci àdduna bi yow ku ko tekkiloon noir américain yi. Mhm. ci ci anglais tekkil ko ñu nekk Caraïbes ci anglais wala nangam ak mais ñooñu danañ wax ak Macky Sall wala nangam nag ci dëkk bii la xewee defuñ loolu ma ñu taxaw moo waral kuréel gi ma jiite sàmm suñu mbattit ñu dem jébbal suñu juree ji juree ji fii ci ma toppe gi maanaam porte plainte ci procureur Amadou juuf boobu lay doog a jël mm-hmm. fonction nga xam ne yow ci dossier yi ngay doog a teg bët la mm-hmm. fraîchement yu bees nekk ci réseau bi bu fekkee ne dafa am loo ci laam-laam yi ma ma ma ma ah, ma ma wàcceel la am na am na ñoo xam ne am na xam ne maanaam yaakaar nañ ne lii mooy bi mooy dafa dafa doy waar mi ngi nii mhm. waaw diñ dañu diñ ah, te am jom ñoom liggéey rek bokk ñoo yi nga xam ne sàcc rek wolof moom sàcc rek sàcc rek fasul dara te ko loolu moom dañu diñ te nangoo liggéey nangoo jàng nag moo tax ñi fi baax ñëpp ah, du kulóor lañ kenn daf maa mën a wéet Sénégal ñi ko baaxal ñëpp du lañ benn benn séeréer la ci am ñi ci des ñëpp tukulóor lañ benn te séeréer yooyu sa tukulóor yooyu leen tax a baax ah, donte nag tey moom maa ngi leen di sànni yaay séeréer la waaye nag wax dëgg yàqul dara ah, séeréer yooyu sax tukulóor yooyu leen tax a baax. d'accord d'accord séeréer moom ceddo la rek waaw. kon nag eh, tukulóor dañu am jom dañu diiñ nangoo liggéey wolof rek ay sàcc rek sàcc fen tappale wolof rek a koy def. d'accord <laughs> mun nga ko mun nga ko mun nga ko. fen mën a sàcc mën a tappale wolof rek waaye tukulóor dañu am jom dañu am jom nangoo liggéey nangoo jàng bari xam-xam moo tax ñi fi baax ñëpp tukulóor lañ. Mhm. yal na leen yàlla fay tukulóor yi yal na leen yàlla fay dañu baax wolof dañu bon te Seydil Hadji Malick wax ko. waaw Seydi Aj Maalik dafa daan wax dafa daan wax ne ñaar daf ko daan wax dafa daan wax ne yàlla nattoowuma lu weesu ma feeñ ci biir nit ñu ñuul kon nekk nit ku ñuul rek gàcc la waaw nit ku ñuul xamul boppam xamul li ko yàlla di doyee du xaste que li may wax mën naa ko demal à travers le monde foo dem ci àddina bi nit ñu ñuul ñaa gën a sonn parce que ñoo gën a soxor c'est ça la réalité man nit ku ñuul la mais donte sama origine naar la waaye sama ndey ngi fii di nit ku ñuul dëgg la waxee ñu kaaba gi dafa ñuul après alxuraan mbind mi dafa ñuul après xol bu ñuul baax xam nga lii lu gën a garaaw lii ci àdduna procureur war a autosaisir mm-hmm. defoo ko ay nit mu naqari leen. Mm-hmm. population bi li ëpp ci population sénégalaise c'est des wolof. Mm-hmm. parce que wolof moom ki mu considéré wolof neew fi di yi ñu baree ngi naan la amoo gis nga euh, bouteille bii fii. Mm-hmm. su fi dara jiitoo leneen ñëw leneen leneen tege ci. ki mujj ñëw du xam kan moo jiitu. c'est yoo xam ne ñun grâce a IA l'intelligence artificielle dana bari lu bari lu mu leeral parce que mm-hmm. yooyu bu leeral ko jotee mm-hmm. dana ñëw xam nga man mi wax ak yow sama yaay li mm, ko waxee naan yaayam séeréer la sama yaay pulaar la ummi bala tudd mm-hmm. donte ne am na mélange koo xam ne maami maamam mu sëyeeg wolof jur ca doom kooku sëyeeg wolof kooku jur ca joom kon maami maamam jooju bi mu seey wolof maamam jim jur mhm. vingt cinq euh, cinquante pour cent la am ci wolof xam ko ci pël mhm. kooku takk wolof doom jooju day am vingt cinq ans vingt cinq pour cent mu takk kooku takkaat wolof kooku day amaat douze virgule cinq mhm. ba ni muy ñëwee ci sama ndey muy am six pour cent bi mu yegsee ci man ay trois pour cent lay am teewut da ngay xam ne nii la yàlla bindee bi wolof moom ni muy considéré boppam am ci maam xam nga am na ci ethnie yoo xam ne. Mhm. sa ndey bu dee juif yi ñoom sa yaay mooy nekk juif sa papa bu nekkee juif sax duñ la considérer comme juif. Mhm. mais ni ñu defee ci àdduna bi loolu mooy seen force bëriwuñu. Mhm. mais wolof yi mais ni juif yi comporté woo tamit problème la ñuy nekk am na ci ñoo xam ne mën nañoo nekk problème ci àdduna bi. mais wolof suñ borom daf ko defal xéwal boo xam ne moom da nekk ku ci maamu ba pare di ko wax lu set di défendre xam culture wolof. xam culture wolof surtout mm-hmm. Mm-hmm. kooku la jàppee wolof d'accord mais léegi boo jàppewul sa bopp wolof amul problème mm-hmm. mais problème bi mooy xam nga li mu wax fii nga wax ko ci communauté boo xam ne ba nga koy wax jege na 45 pour cent ëpp na na 43 pour cent fi ñu toll nii daanaka euh, ëpp na pour cent dernier recensement yi ñoo xam li tax ñu téye ko yaatu gi mu am nga xam ne amul problème doomam loolu sax Sénégal léegi yëpp noonu la léegi bu njëkk nii am na ñoo xam daawuñ may seen doom ñii wala nangam mais hmm. wolof amul woon problème boobu surtout doomam bu góor nag foo mën a takkee c'est bu jigéen bi nag la xaw ci la xaw a fiir hmm. mais teewul sax pour mu may la ko faaw nga doonam kaang bu fekkee ne séeréer nga faaw nga doon ku jàmbaare foofu hmm. xam la ci nangam nangam mu may la pulaar bi noonu boo xoolee même ci kajoor sax da nga gis ñu naan géej gi géej gi moom typiquement wolof mm. mais am na ñoo xam ne day gelawaar mooy ñi nga xam ne séer ci séeréer bi lañ lañ laal koo xam ne seen meen ki ñu ci séeréer yi moom lañ tuddee lay gelawaar mm-hmm. dorobe maanaam ci pël yi ah wagadu da ngay daal demaat ci mandi mm. te pourtant loolu royaume wolof kajoor mm-hmm. xoolal ñooñu ni ñu amee woon kii yow nga ñëw tugg ci seen biir nee nga naar la xam nga nee na du tukulóor moom fii bu mënoo wax euh, pël yi dara daf leen a tagg tagg nit mënoo cee wax dara amul problème li mu moo nekk ci pël yi ñu bëri na xam-xam dañ koo am mm-hmm. bari na ñoo xam ne sax bu ñu waxee man maa ngi nii sama kii mee nañ ci pël mais li mu amul droit gis nga ko li mu wax ci nit ko ñuul ba dem ba sax li ko gars yi di defale nit ku ñuul pour yow nga xam ne sax bokk nga ci diine ji. Mm-hmm. ñu naan la alxuraan dafa ñuul kaaba mu ne après. benn teraanga bu nit ku ñuul war a am wàccuwaay joxulu ko ba pare yaa ngi ci biir nit ñi ñuul nee nga donte say origine naar la yow sa yaay li mu doon séeréer sax yaa ngi dégg ngay wax yëkkati yow ku weex complexe d'infériorité boobu nekk ci moom xam nga nag nit pour man boo métissé. Mhm. daf la war a gën a may nga ubbi ko non du ma t'inquiète du ma tooñ métis <laughs> yeeg man lu rafet gis nga man aw ma lu bon ku am lu bon ba jox ma ko yow la hmm. mais fenam yi laay wax dégg nga wax ci Seex euh, Sidi Aj mais dafa fenal Sidi Aj Malick mi nga xam ne moom la euh, jokk xoolal wax ju ñaaw ji mu ko wax loolu wolof yi baax nañ trop mais lii bu ko waxoon bu ko wolof yi gëmee ah man bu ma doonoon taalibe Sidi Aj Malick mu wax ma ne lii mu ne moom la Aj Malick wax ci nit ko ñuul dëgg la. Hmm. moom ma maanaam dama koy wax comme duma la dama naan bu ko waxoon sëñ Touba. Hmm. te fekk sëñ Touba. mu wóor ma ne sëñ Touba ko wax bu subaa ma doon leneen lu dul tam murit mais damaa xam ne day fen d'accord te bi ma koy kaas sama benn pap boo xam ne moom laa gën a rus ci àdduna tijaan la comprendre li may wax moom côté pas-pas xam nga pour nit ñi wala ñu nit kiy wax wala nangam côté pas-pas la ñuy demee ba nëga ni ci lañ dogoo maak moom ñu may defaree ma ne ko ki xamul dara moom bu xamoon dara waa ji lay jéppi parce que li mu fenal sëriñam am na ñoo xam bi may dal ci moom ñu naan non du sax Serif Diallo la sant ma ne sama yoon bu santee Diallo bu bàyyee Diallo gi dem ci ay daraa yooyu yëpp moom la. Mhm. loolu du problème. mën naa am xam-xam it mën naa nekk ab Serif aw ma boobu problème ndax yàllaay maye. Mhm. mais lii mu wax bu ko doomu yonent bi waxoon attitude bi ma am digg moom ci la moom laay am. d'accord. bu ko yonent bi waxoon it du ma ko topp. mais mais ci ci ci wàllum ci wàllum. yoon mais ci wàllum yoon aussi euh, des fois dañ naan xay na euh, nit mën na mën na juum euh, ci ci kàddu yi mais su jéggaloo rek la plupart dañuy gis dañuy jël ne problème bi day mais est que du yoon aussi des fois ci problème yu ci mel ñu indi ay sanctions en guise d'exemple pour pour pour pour nga li mu wax ni xam nga ne hmm. phénomène yi mu wax ba pare xam nga lu ci teg. non dañoo yàq sama maam daf ñoo sosalaat ñun ñi ñu jógaatoon di ko wax maam daf ñoo wër bi ku fenelaat ndax nee na dañoo euh, falsifié ay waxam mu jóge fi dem France koor googu koorew te sa koor mu taal rajo yi daan taxaw sonal nit ñi mbel mbel mbel mbel di wax bay wax lu kenn xamut hmm. ah euh, ñu demee nii yow nga dem porte plainte procureur di seetaan tey Omar Sarr lii mu wax ah, ñaaw na de wax dëgg yàlla parce que leen rek a ci ñaaw mooy mokke gi mu leen di def euh, ni nangam nangam waru ko. Mhm. te dégg nga li ma wax fii. mais bi mu taxawee ne waxu ak ñoom ba daal ne ah ci kii maa ngi lay jégal xam nga Omar li mu def problème bi. Mhm. li gën a mudik cuune lenn la. gis nga yonent bi bi ñuy def fatxu màkk ñuy yegg ci di wàcce xërëm yi. Mhm. yi nekkoon ci biir Kaaba gi. biñ koy daaneel Seydina Omar daa ñëw di. participer ci daaneel xërëb yi mu ne ko déedéet yow mas nga leen a màggal maanaam mas nga leen a gëm. Mhm. kon amal respect ci ñoom ne ko taxageel na le ñi nga xam ne ku mel ni Seydina Alioune nga xam ne mosul jaar ci kéefër mu ne ko dindi ko xoolal loolu jàngalin wu rafet woowu yonent yàlla moom du jàngale lan nga ciy gis mooy nit day civilisé équipe football yii. Mhm. Real Madrid su la jëndoon ci Bayern at mi mu la jëndee buy dajeeg Bayern yow doo am loolu bu ko Omar Sall xamoon nan boo mosoon a nekk tijaan. Mhm. yow bu ñuy wax tijaan yi dara da leen di respecté. d'accord loolu mooy li nga xam ne moo am nit ki da ngay civilisé loolu moo rafet beneen bi mooy nag na nit ñi xam ne Sénégal gii du dëkku diine. Mhm. du dëkk du du lislaam dëkk la bu ay jullit dëkki waaye du dëkk jullit. Mhm. dëkk la bu ay chrétien dëkki waaye du dëkk chrétien. fii nit ñi. leneen lañu nekkoon ba lislaam ñëw ñu nangul ko mhm. te baax gi lislaam di ñu jàngal mhm. bari na ci loo xam ne daf ñu cee fekk xam nga ñun xaaruñu pour dugg ci lislaam mhm. di respecter suñu ay jigéen déedéet lislaam fa mu wàcc yonent bi ci xeetam am na ci ñoo xam ne dañ daan rey seen doom jigéen di suul ngir ragal ñàkk donc Seydina Omar kon l'islam bi mu leen koy tere bu ñëwee fii nekkoon naa débat ak benn oustaz ci jamono bële genre journée du 8 mars xaw ma lan moo xewati waaw journée de la femme mu naan jigéen ñi war nañoo sant l'islam parce que moo leen libéré dañ leen daan rey di suul ma ne ko dangay ngay naan coow ba fan lañ daan reyee di suul nga wax leen ko fii kenn mosu fee suul nit ndax hmm. ragal ñàkk suñuy doom yi jigéen ñoo ñun ñuy gore moom ñun nag xanaa léegi la jamono yàqu fekkee ne nekk nañ ci baax googu. Mhm. ay armeel mix sax am fi. Mhm. rafetoo man mii di wax ak yow sama maam ji ma yar. Mhm. benn xaritam bu ñuy wax Thérèse jaata ci wàllu li ñuy wax euh, savoir vivre. saa wolof bu mënee nuyee cravate su mënee lekk à table. su mënee def yëpp loo xam ne nii bu doon dox tey mënoo ko xàmmee parfois sax nit ñi dañ naan ma saa tubaab <laughs> wala nangam nangam sama maam joojoo ma tooñ mm-hmm. te bon du ma ne tooñ moo ma jàppale parce que loolu man ko moo gën bañ ko man voilà treize jaata d'accord faatu na mook mm-hmm. mook mook mook sama maam ñoom ñaar ñëpp doonoo di xarit mm-hmm. xarit rawante wuñu trop trop trop trop mais lii mooy Sénégal mais ay ustaas ñëw ci dëkk bi ñii di saaga ku la dàq xamadi xam weesuwut nga mën a xam nan ngay joxe sa message ba kenn du la jéppi. Mhm. dafa am solo. Mhm. xam nga bu ñëwee tey benn euh, chrétien wàcc liggéey nit ñi di la ñun ñaata yoon lañ toog fii boo bëggee xam sa diine dem wooyi ustaas. Mhm. mais sa diine bu nee la yamal fii foofu nga yem mais taxaw ci digg pénc di wax bay offensé nit ñi parce que naan diw waroo koo ñaanal wala war yow ku la wax loolu <laughs> maanaam penc mi. jëlante nañuy jël ci ñoom mi soxna am na lu tax. Mhm. lu tax mu ne buñ rendee nañ ko lekk. Mhm. te nangu ko ci euh, kéefër bi. Mhm. nangu ko ci juif bi ak ak ak chrétien bi nangul leen ko. mais am na lu tax. loolu boo ko jëlee am na lu muy tekki. d'accord nañu rafetal nekkin wi. bañ a taal réew mi j'espère que lii ñu def nii. Euh, tekki ëllëg ku débordé ñu ngi leen xaar. fii nit taxaw na fi ne damay poña yàlla. su yàlla nangamee bu la naree fay ma <laughs> poñe nit taxaw na fi wax euh, yonent Souleymane xaw ma nangam nag nag xanaa ñoom bon foofu lañ yëpp. nit taxaw na sax baaraam même bu dee daf cee bokk traité benn kilifa ci fi mu bokk lu doy waar. Mm-hmm. fu mujj. d'accord. bu fekkee ne dañoo commencé lii nañu dem jusqu'au bout. Mhm. loolu tamit mhm. mi ci ci dëgg. justice nekk fi. Mhm. bu ñu amatee ku wax toj penc na sa risque pour loolu ñu woo la. même bu dul tëj ñu dànkaafu la xaw la kii sursi da nga xamaat sa bopp. d'accord mais en guise d'exemple daal voilà en guise d'exemple. pour man tëj oustaz. Oh. Omar Sall bàyyi Ibrahima ay dara ak naaw fekk da koy xaw a jege. du ma ne moom la. mais na procureur weesu ci loolu parce que ñun baale baalewuñu parce que bi mu taxawee di wax di baalu sax daf ñoo sosalaat teg ci réew rek la def. <laughs> d'accord merci merci que euh, waaw côté boobu nag xaw xaw xaw xaw na leer euh, mais non sànq wax nga ba wax wàllum justice aussi bokk na ci un ponk yi nga xamante ne euh, bëgg nañ cee waxtaan ak yow. ndax euh, ci kuréel gi nga xamante ne euh, moom ngeen moom ngeen mbokk euh, ni ngeen di taxawalee taxawoo Ousmane Sonko laa war a wax am na solo ajuma ji nga xamante ne ñuy jugee gis nañ cour suprême daal di dàq dogal li nga xamante ne juge Sabassy Faye jëloon na ko ci wàllum si gi ci wàllu woowu yéen a doon xaar xëy na leneen daal di cay daal di cay juddu gis nañ tamit la nga xamante ne la ci daal di la ca daal di teg mooy que ne Ndakaaru la ñuy daal indi loolu nga xamante ne moo di. Euh, dossier euh, dossier boobu yow ban jàngat nga ci daal am. waaw xam nga ci saabu si fay daa am ku ñu jël ay àqam. Mhm. mu saisir ko mu bind ñu bind saisir ko mu bind jébbal ñam war a jàkkaar loolu. Mhm. agence judiciaire de l'État jël dossier bi jiite ko ànd ak ay avocats état bi ñu dem. Mhm. bi ñu yeggee mu ne leen. mënoon naa leen mënoon lii mënoon naa koo def huis clos mënoon na maa bañ woote mënoon naa ñëw rek. Mhm. kenn ku nekk bañee bindee jox ma bind naa ñee kenn ku nekk mi daan nga delloo ma. Mhm. ma àtte ci loolu. Mhm. waaye dama leen a woo fii pour ngeen éclairer. leeral waaw. ñu wax yendoo wax ba ne xaw dossier boobu ban heure la jeex. ñu guddee guddee la suba la tàmbalee. ba vingt trois heures nangam. am na ci fu ñu yegg sax mu ne waat ñi lu ñuy wax ñee mën nañ koo wax. Hmm. temps am naa sama temps. Hmm. defee àtte bi ci manière bu rafet amoo dara loo ko jamee raison pour la laquelle lenn rek la agence judiciaire de l'État jàppoon ne mën na faa téye. Hmm. mooy bokkoo gu mu wane ci kuy liggéey ca mairie bu Ziguinchor maanaam ku fa nekk conseil. ñu indi mbir mi attaqué ne pour ne dafa forclos. bi ñu indiwaatee mbir mi ci fañ yi mujj li mu waroon a àtte mooy ndax mbir mi jaar na yoon. wala jaarut yoon loolu lañ ko laaj. damay baaxoo di jël parfaite illustration boo xam ne làmb yi ci weesu muy Modou ak Ama Balde. Mhm. bi ñu ne ronkum daje. Ama sàggan ba Modou wan ko. ginnaaw jekk ko mhm. di rokkas fi muy rokkase benn yi euh, ñëw jàpp koo xam ne sagoom mayatu ko mu jàpp pour bëre bi yam fa maanaam mooy ñi nga xam ne tey xañ na bi Ousmane ko jekkoo Macky Sall ñëw nañ ne ko bàyyil mhm. xaj na mhm. dama koy wax rek gis de nangam nee nañ ko bàyyil mu bàyyi mhm. ah te waruñ ko woon wax <laughs> mu bàyyi mu parce que kee daa ñëwoon doon ko jekkali far moom mu jekk yegg ko far moom mu jekk ko war ko jekkali a ah, def nañ loolu arbitre suufle arbitre suufle dem vaar bi mu demee vaar seeti ñëwaat gis nañu ne ndekete ama amoon na quatre appuis mhm. quatre appuis yooyu moom ngay yóbbu ci daan ba leen saa saa ba si fay daan kon def nañ quatre appuis mhm. léegi lu arbitre war def soufflé ne jël am na pour maanaam cour suprême moo moo war nekk non non bu mu wax cour man maa ngi ci làmb ji. d'accord léegi arbitre lu mu war a def xanaa li mu def arbitre ba la war war a def suuf lay jox. jox Modou Lo victoire. waaye léegi bu fekkoon arbitre boobu joxul Modou Lo victoire daa ñëwaat ne bëreew bëreewaat leen waaw léegi yóbbu leen làmb ji stade Iba Mar. stade Iba Mar ñu war faa dajewaat. te ñaari mbër yi. gis nga niñ bëree biñ bëree ci règle de l'art mm-hmm. ay adversaire lañ mais duñu ay noon ndax ñaari doomu Sénégal lañ mm-hmm. lu ma wax rek indi ko fii nag d'accord ñaari doomu Sénégal lañ mm-hmm. bi ñuy dem VAR sax yaa ngi gis ñoom ñaar ñuy waxtaan ki daan sax naan ko kaaj moo moo naan ko boo bëggee mën naa ko bëreewaat buñ ko kiyaatee ma kii mooy fi ko bëree nañ ko fi bëreewaat fi ko bëree nañ balaa gaayee dem ah waaj daal di ñu daal di ñëw soufflékee liñ leen taggoon sax ci ne luñ tardé woon seen ci mikaay xaj na li nga xam ne moom la militant yi doon saagaanteeg wala liñ doon def ak yooyu yooyu yëpp ci mm-hmm. boo ñëwee ci fii CNG woowaat leen delloo leen ko ndax bëree bu rafet mm-hmm. gis nga euh, lii di fo muy bëri bëloot carte damier mm-hmm. yooyu yëpp dafa baax parce que dafa bokk ci li ñuy niteel parce que loolu rab yi duñ ko def ay nit a koy def kon loo gën a mën surtout stratégie seetaan làmb mhm. loo mën a dam yee man damay bëlot dimanche foo ma fekk chaque dimanche moom fu ma fa na bu gaa yi wax politique mën a leen déet loolu daf lay jeu d'esprit la daf lay delloosi mhm. te day tax yow dootoo da ngay nite parce que bàyyi ma yi duñ ko def waaw mhm. mooy golo yi da nga gis ñu xaw a foot moo tax ñoo gën a ñemee ñoo gën a jegeek nit léegi loolu boo ko gisee ci làmb ji mooy bëre bii xewoon suprême. Mhm. est-ce que bu arbitre bi ne woon bërewaat leen keroog làmb ji. Ama ñëw ak dooleem ji bari ji keroog li gars yi di wax yëpp Ama kenn mënu koo joxañ baaraam ci wàllu sport dafa taxaw moo gën a sax taxaw Modou Lô donc te ci bopp la ko daan maanaam foofu Ama dafa indi doole yoo xajul ci Modou mhm. mais Modou bopp la daane Ama kum neex nag nga wax loolu Modou loo ñëpp xam nañ ne taxaw na physiquement. Mhm. mais amaa bopp la ko daane euh, euh, Modou Lo bopp la daane amaa keroog mais du doole. Mhm. waa léegi su fekkoon arbitre dinañ nañ bëreewaat gars yi war a ñëwaat léegi Ama jekku Modou Lo daan ko lan mooy xew est-ce que doo xeeb arbitre bi est-ce que est-ce que foo loolu rek laa mën a wax duggatuma ci Cour suprême. ah, ah non mais mbir bi fa mu leer. waaw non leer na fa mu leer parce que parce que parce que ndogal li nga xamante ne. moom la ñuy ànd ak Ousmane Sonko doon xaar daanaka ca njot euh, ki nga xamante ne moo di avocat général. parce que tamit euh, avocat général mën nañ ko méngale ak procureur bi nga xamante ne tey balaa juge bi. joxe du yaa ngi méngale non loolu la sax léegi ngi méngale xam nga dugg nga ci méngale. léegi ndogal li arbitre bi joxe bu joxe woon keroog daal nay bëre jiwaat leen ko ci beneen. stade waaw léegi nu muy demee nañ dem ci leneen leer na ba pare. d'accord man loolu mais mais mais li li li ma bëgg a xam mooy. Euh, réaction bi nga xamante ne gis nañ ko ci bañu bañu bañu génneel parce que li nga xamante ne moom moo nax ñu bari mooy euh, ki nga xamante ne loolu ba tey ba tey ma ne nañ dellu ci làmb ji mhm. làmb ji ba mu loo defee ama noonu yaa ngi commencé gis nit ñi sibile mhm. tëb daan daan après ñu ne leen non gars yi dañuy dem vaar ñu ne tekk mooy mooy dem vaar gi ñu ne tekk <laughs> mu jëw teg yóbbu ko ci làmb ji rek d'accord bu la kenn sonal nañ dellu ci feneen foofu nañ fa génn. leer na mais mais mais non ginnaaw euh, loolu lépp am na daanaka euh, la nga xamante ne moom la waa Ousmane ko bëggoon malheureusement wala sax lañu amoon. Euh, amoon ndogal loo xam ne c'est en leur faveur ñàkk ñàkk nañ ko léegi taxawaay bi nga xamante ne. waaw kay léegi <laughs> ba tey ma ñëwal la ci làmb ji. non non non non déglu ma waaw non dama am fu mu baal ma génnaat fële foo xam ne tey waa ji li mu bëggoon mhm. xam nga li tax waa ji mer xam nga lan la mm. li mu bëggoon lañ ko defalut maanaam tàqali ko Ousmane Sonko foofu la amoon yéene xam nga amaa bi mu ñëwee ci lam ba bëggoon a daan euh, kay jàpp na ne moo ko man mm. alors dooleem boo xoolee day wóolu dooleem moo ko man mm-hmm. far Modou Lo daan ko amaa nag dafa doon ku fair play moo tax le contraire na mu waroon a mere merewu ko parce que daa xam ne yàllaay maye. Mhm. contraire fii nag ci seen politique bi daa mer yow yaa tëj yaa tas parti. Mhm. Hmm? Mhm. yaa wàccee photo. yaa restreindre liberté yi ba kenn jógatut te yaay mer. xam nga loolu lu mu lay yoon yaa ngi déggoon procès Mame Mbaye Niang du tey lañ ko waroon. waaw tey tey tey tey tey tey le xam nga mbir mu dem la dam la boo gisee ma naan politiciens yi dañoo war di bulóot. dañoo war di damyee jàng dam non le 22 plutôt maa ngi maa ngi maa ngi maa yokk gi voilà xam nga le 23 la war a am. Mhm. voilà tey le léegi mhm. même yegg ci suba. mën naa am doo gis procès Mame Mbaye Niang mhm. parce que li taxoon ñu koy kii xam nga loolu mooy yàlla àndut ak Macky sàll ci diggam ak Ousmane Sonko parce que chaque fois lu ko sénégalais yi jéppee rek lay def moo tooñ waa ji mais daan na tooñ ay nit muy jàll. Mhm. daan na tooñ ay nit te sénégalais yu bëri di jàpp ne mi ngi ci dëgg wala tooñul. Mhm. mais ci Ousmane Sonko chaque fois moom day weer boppam. Mhm. xam nga nu muy weeree boppam maanaam lii ngay dem naan ko contumax jàpp nit ki ba pare di ko wër jàpp nit ki euh, état foofu maa ngi wax état. état moo yor. Euh, administration pénitentiaire ci l'administration générale la bokk mhm. hôpital bi ñu téye euh, pavillon Teranga c'est des militaires ba tey c'est l'administration mhm. génn la mënoon nga ne sax benn hôpital privé clinique comme bu nekkoon fii suma la xaw ma wala nangam man ngaa lay ne ñëw naa fa ñu ne ma nangam docteur yi ne du ma fa dugg nga ne ma daal di jël IC bi mu taxaw mhm. mais xoolal IC bi waa ayib dafay àndaloon ñu dem DG mais duggul duggul duggul de léegi yow kon sa IC boobu kon yow valeur juridique bi IC am est ce que nga ko di ko wax est ce que sañati nga di ko wax parce que yow dem na fu mu war a dugg DG fi ñëpp moom. Mhm. ñëpp war faa dugg. Mhm. nga ne du dugg. mais suñu suñu ñëwee parce que euh, li li li coow lu yëpp. dem cour suprême beeg lépp daanaka mbirum mbirum parrainage ak élection présidentielle bi nga xamante ne moom lañ moom lañ daal di jëm ndax tey euh, la xewoon 2019 cause bi nga ma bëgg a wax. voilà maanaam la nga xam moo xewoon 2019. Ah. gis nañ ko am na ñoo nañ daan yu leer condamnation yoo xamante ne euh, ñëpp xamoon nañ ni ça leur de leurs droits civiques et politiques. mais teewul ba ñu demee mbir mi di xew yëpp la xew. voilà ba euh, des. Euh, des résultats la tàmbalee xew. biñ ko defee ci la candidat yi ñeent yi demoon ma dikkee Idi Issa Sall Sonko dajee ci benn table. ñu ne lii ak càcc la duñ ko nangu ñu bokk signé mais lan lañu gis après Issa Sall. ñu def ko ministre sëñ Moustapha ñu def ko ministre conseiller. dem ci Macky Sall. Mhm. war la parce que ñi la voté loon voté la woon pour ngay dem ci Macky Sall sinon kon Macky lañ doon voté. Mhm. nga war dem. Idrissa Seck taafantaloo corona bi dem kan moo des. Sonko kese moo des. Ousmane nga dégg wax ja nga xam ne moom la ma jàmbal wax ne bi Ousmane Sonko amee 15 pour cent damaa waxtaan ak samay nit ba dal di am kum joxoñ ne donc tudd tournée sëñ Bass Abdou Khadre. Mhm. ma ne ko Ousmane gañe na xaw ma Ousmane mii am nangam. Mhm. bis bu continuer Touba mooy gën a nangam. ah leer na de Touba de moo ëpp ñuy voteel Ousmane Sonko waaye gisuñ fa kenn koy ñàkk kersa sëriñ wala nàngam ak nangam. Mhm. ay nit ñu bañ régime en place ñoo fa nekk. kum neex bañ leen a faral. Mhm. loolu moo fa xew comme ni mu mën a xewee fépp te nag su faa am dara sax nag mosu faa gañe. Mhm. ndax présidentiel ba Idriss rek moo fa gañe woon. ca waxuma présidentiel bi ca ba muy falu sax gañewu fa. Mhm. war dafa gañe woon. kon Touba moom a yàgg am fu muy kii mais ànd ak loolu ñuy def seen ay conspiration man waxi ma jàmbal jooju daf ma daf ma jox ma gën a yaatu loolu moo indi lépp loolu moo indi dossier aji Sarr. moo indi affaire Mame Mbaye Niang moo indi lu topp Sonko yëpp fala la dal mooy dem ci élection yoo xam ne nee nañ cinquante huit pour cent nga ko gañe te bi nga koy li ngay exercer wane nga ne gañe woo parce que nit ki bu amee illégitimité. moo mhm. tax attention sénégalais yi élection yi nañ ci teg seeni bakkan parce que bu ñu fexee ba président bu illégitime ne fi ku illégitime xam nga lan ngay mottali ko hmm. ay FDS force de l'ordre bi ay grenade lacrymogène mais mais tey tey tey ñëwee déjà ci ñàkk jot gi daanaka mën naa wax sax tey euh, yaa ngi sànq yaa ngi doon wax naan jeu jeu de damier dafa am politique bi est-ce que mënuñu ko méngoog jeu de damier parce su nekkee tey Sonko moo ngi gis li nga xamante ne tey mooy ñëw ci kanamam ñi nga xam ne ñoo ñoo ngi gis li nga xam ne moo ñëw seen kanam parce que dañu doon waaw ah, ah, ah plus lañ am. Ah, <laughs> d'accord d'accord mais tey ci ci ci ci ci ci li nga xam ne noonu la ñuy génnee Bassirou Diomaye Faye ci seen chapeau daanaka ci diggante bi nga xamante ne moom la yëf yi war a daanoo est-ce que nekkul benn trouble boo xamante ne ñi ñu jàppee seen i adversaire du ñu ko mën a régler donte Bassirou Diomaye aussi tamit mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi ci kanamu yoon. waaw bu nekkee ci kanamu yoon nañ ko def ni ñi ni ñuy def ku nekk ci kanamu yoon <laughs> nañ yóbbu Ousmane Sonko au moins dem nga di ko àtte ji. Mhm. xam nga dafa euh, wax bu commencé génn. Mhm. waaw parti buñ tas nangam lu tax ci Ousmane Sonko lijjanti woo parti buñ tas. loolu rek bu fekkoon ne am na kay saafara l'affaire Ousmane Sonko daa jekk waa ji même si ba daan ko. Mhm. même arbitre taxawaat daal di waxaat daal ne nañ dem bërewaat ko. teewul waa ji ñemewul ji mu gis benn porox ndollu dossier Mame bëggoon cee jàpp léegi nag Ousmane moom dofut xam na ne boobu bu ci jàppee mën naa am mu am ñoo xam ne ginnaaw la mu teeloon a wax am na ku mu ñu ñu bañoon dugal ko ci. Mhm. ah mu def li gën a xam nga mosoon nañoo wax ma ne la waa pastif li ñu war a def mooy. def de telle sorte que Macky Sall gàllankoor Ousmane Sonko ak bañ koo gàllankoor yam ci moom. yam ci Macky Sall. suñ ko defee léegi mu bàyyi Ousmane Sonko loolu mi ngi tàmbali di xew loo ne bu ma doon buur def ko mag ci xelam buur mais man naa ne maa ko njëkk a wax man damaa demoon de loin sax loo xam ne dama doon sax suuraale pour opposition bi yëpp la ci gëdd ma ne am na loo xam ne sax waa Pastef waru ñoo jël initiative bi l'opposition ñoo ko war a jël ñoo war a def lu ma la doon wax plan de Saa Wolof pour l'opposition plan de Saa Wolof lan la woon mooy xam nañ ne yaa ëpp doole. Mhm. nañu jël benn mbër boo xam ne ci yow lay bokk. wala ku ngeen jàpp même na bokk société civile mais comme Pastef ëpp doole. Mhm. na ko joxañ ñu wax kooku mu jàkkaarloog mbërum système bi. ñu def gouvernement de transition boo xam ne moom bu faloo kooku daf ñuy jox ay garantie maanaam daf ñuy jox baatam lañ soxla. Mhm. parce que faaw ñu delloowaat kàddu kàddu. faaw ñu delloowaat ko ba nga xam ne loo waxati. du du du kooku taxaw ci kanamu askan wi ne lii laay def un un an bi lan lañ soxla soxla mois yi mooy ñu restaurer l'état de droit séparation de pouvoir am ensemble bi ñu tëggee ko noo xam ne nii suñ ci jógee élection yay ami ndax yay ami après euh, deux mille vingt cinq. Mhm. deux mille vingt cinq lay mhm. nekk. Mhm. février deux mille vingt cinq. ñu commencé cinq cinq cinq. vingt cinq trente trente cinq nangam. bu ko defee kii nga xam ne moo fi nekk deux mille vingt quatre pour jeexal deux mille vingt cinq muy président boobu. dafay def. def état de droit lay restauré tegaat fichier bi ñu teg ko def ko bulletin unique bulletin unique muy lu am solo moo mm-hmm. gën a néew ci xaalis ak yooyu suñ demee ba 2000 euh, jub 2025 ca nangam ba parrainage ñu delloo ko fa mu nekkoon parrainage war nay mën a am mm-hmm. mais fi Sénégal toll parrainage nañ ci soxla rek 15000 signature képp mm-hmm. ba pare muy am caution bala ngaa bokk ci parrainage mu am caution. ah d'accord. waaw ndëgg mais loolu tamit day. ndëgg sa rek rek non caution du yaa ko joxe. ah daal waaw nga joxe bu fekkee am nga nombre bi. 15000 mhm. yomb na bu fekkee am nga 15000 yu wér. Hmm. nga jëlaat sa nangam. costion bi fa nga koy joxe. Ah, léegi buñ ci demee bu boobaa Ousmane Sonko buñ ca tollee mbër moom bu gañee mbëru système bi. ñu daal di dem ku nekk dem campagne yi six mois yi ci des man dugalal naaj sax euh, éducation bi ñu jooyanti ko wala lu bare bare mais liy jàmp daal Sénégal problème mu droit la am problème mu justice la am. Mhm. suñ ko reglee rek. lii ci des yëpp buñ toog réglé buñ toogaatee. Mhm. nañ man a réglé yi ci mais est-ce que du justice boobu noonu tey tey mu ngay wax nii. non ci laay moo indi jafe-jafe yi nga xamante ni moom la wax Pastef Pastef nekkee ci laay moo indi jafe-jafe waa Sénégal nekkee justice sociale moo waral nit ñi du mbëkk justice moo tax. boo demee hôpital gars yi di xool xaalis bañ laa faj. justice mm-hmm. moo indi lépp problème yëpp. parce que mm-hmm. wolof da ne bu soxla dee ñaar rek daa fekk wér gu yaram bokk ci nit. su ñaari soxla daa fekk wér gu yaram ci nit bu amee bopp bi metti képp benn soxla la am. Mm-hmm. mooy réglé ba bopp bi wér leneen luy ñëw doo ko ñëw. réew nag ñu wér gu yaram mel ci nit noonu justice mooy wér gu yaramam. boo amee réew mu am problème mu justice benn problème la am. yeneen yi ngay wax yëpp du problème c'est des problème petits problèmes. Mhm. mais justice mooy suñu problème du lekk du naan du dara parce que bu justice rek ñu lekk naan faju mhm. léegi kooku bu ñëwee mooy plan Saa Wolof boobu mooy wax buñ ca yeggee politiciens yi Bougane Sonko Abdourahmane Diouf ku man sa morom duma wala élection yu coon ñaa bokk. Mhm. Anta Babacar ñaa euh, Ngom bokk. Ah, est-ce du bëgg bokk. non non ñooñu dañoo war a bokk man na sa resque que hmm. participer ci débat bi. non élection Sénégal yi normalement dafa waroon a am minimum quinze candidats Boubacar Camara bokk ci élection yi. Abdourahmane Diouf bokk ci élection yi. ah. Euh, ñoom day euh, Ousmane Sonko. ñu toog ci plateau nii rek di ko jokko major nii nii nii. xam-xam xam-xam lay génn. buñ paree ku Sénégal ku mën sa morom ku Sénégal fal boobaa Sénégal am na président day mat sëkk. parce que ñu mat nga àndal ci kii bi te yéen ñëpp bokkoon sens kon ku falu réew mi la fal. ku mm-hmm. falu doo doo doo kii. léegi bi ma ko defee opposition wuyu wuñ ma léegi nag Ousmane Sonko waa Pastef jël seen décision bopp. Mm-hmm. seen carte gi ak waa ji xam nga bi bipolarisation bi gars yi di bañ ba journa seen mbokki journaliste yéen journaliste gars yi dañ leen di mere. te mm-hmm. defoo leen kenn dara. <laughs> naan waaw daa mel ni Sonko rek moo fi nekk wala mais Sonko rek moo fi nekk di teg ay at du ñëpp nga dem di pare parrainer ji menam mm. Sonko moo ci bokkut ba pare te bi ñu ngeen di parrainer ji Sénégal yëgul ne parrainage am na mm-hmm. waa ji daa joxañ Basiru rek d' accord parrainage léegi d' accord bala ngaa bala ngaa bala ngaa bala parce que euh, pare euh, ni nga xam noonu la tànn tànnee Bassirou mm. mu nekk tànneef loo xamante ni tamit euh, ba mu bañ koy def. ñu ci kenn daanaka kenn waxul mais dañoo gis deux jours après gars yi commencé naan waaw politique Basirou ndax am na taxawaay ah, ndax Basirou am na doole Basirou ndax xam-xam waa ngi fii maanaam coow commencé. ñan ñooy wax loolu. Ah, xam nga gars rek dañuy wax. waaw ah, ñun ñoo ëpp ñuy wax par cas adverse. ah xam nga fi may dajee di moom di bulot APRS la. <laughs> Euh. foofu ma fa demee bu ma bëggee jox ci waxtaan dama la fii andiwuma fi politique. Mhm. sama esprit bi li may dajeek ñoom Zorom ak ak yeneen journalistes yi daf euh. maa doy Eh. ak boole ko sama liggéey yooyu dafa ma doy sëkk fii dimanche moom. Mhm. évacuer le stress rek damaa ñëw pour boulot. Mhm. képp boulot lañ fi waxtaan mais bii waa dañoo commencé man sax ñoo ma yëgal euh, kii bi nu mu tuddati commencé Sonko. yabaate la yoon ngay nekk prison. ba koo xam ne sax Sonko la gënoon fa waaye nooy nekk prison bi di def déclaration. <laughs> ma xam li ma xam di reetaan ba yàgg. Mhm. Euh, waa ji di ma kii biñ demee ba ci ngoon gi. ay boor guddi yooyu ñu ne joomaay la gaa yi. ngay na mu daal ma joomaay tànnoon gii mari sax nangam. mu ne ko mhm. yow xanaa doo suñu adversaire yow adversaire wu. mu ah, yow kuñ tànn mbër mu ñu tànn lu mu yooyu moo la waroon a gënal. ma mhm. ne ko amul problème yow génn ci li nga ne bu bëggee commencé ma ne ko daa damay bëloot de mais dañu def loo xam ne dafa am solo xëy nañu dañu man bis nag. waa mhm. Pastef. na nañu ne. maanaam Sonko dafa war a def benn joxe benn message gars yi ne déclaration. Mhm. am ci perception wu. vidéo lay def xaj na benn journaliste. lañu bàyyi wala am ku filmé rek bu fekkee ne da nga di ko xuusmaa ñàpp. Mhm. maanaam surtout ma commencé ku mel ne Aïssata Tall Sall. ministre de la justice fekkoon ne liñ koy doyee li mu war a def lay def. Mhm. xelam du xalaat mukk ne agent pénitentiaire yi. irresponsable nañ bay filme wala ñuy nangu ko filmer Sonko fa mu ne. fa ne. Mhm. xam nga li tax biñ ñëwee bëggoon a bàyyi affaire bi ci hôpital principal. Mhm. muy liñ doon notifié Sonko xam nga buñ ko fa bàyyi dañ naan bàyyi nañ ko fa après ñoo xam. pénitencier mhm. yi am mat guñ mat ne leen déedéet kii prisonnier la. parce que su ngeen ko jàppee fa mu nekk. notifié fële ngeen ko war a wàccee. seebi xutaan ñoom ñu jël ànd ak. nit andi ko ba ci moom ay empreinte am lay teg. waaw normalement du ay empreinte am lay teg. parce que prisonnier yamut ak man xam nga yow mi mënoon nañ laa injecté ci fichier bi. mais dañ la koy notifié mais bu ñu la notifié na da kii après mais da ngay signé. signature boobu da mën a taxaw naan sama signature wala du sama signature. mais est ce que ki ñu teg loxo. mën na loolu mais empreinte yooyu bu ñu jëlee falsifié empreinte am bu nee du sama yos dañ koy. comparé comparé ak yeneen dañ koy teel a xam. mais administration ki ko jiitee am gëdda muy colonel Bertrand Bokandé yee salaat prison yi. ñuy wax euh, peni pro la xaw ma muy def dafay avancé. ci mhm. sécurité bi. Mhm. surtout li ñuy wax sécurité dynamique. xam nga sécurité dynamique mooy li am solo. Mhm. mooy li sénégalais am dañoo bëggante suñu biir dañuy wax. buñ gisee lu dul loolu daal dénoncé nangam. noonu la defee sécurité dynamique ci biir. dañuy wax sécurité actif passif dynamique. Mm-hmm. actif passif actif mooy nit ki taxaw di wat yor fetalam ak yooyu. passif mm-hmm. mooy miir bi barrière yi caméra surveillance yi lay euh, dissuader. Mm-hmm. mais pass euh, dynamique mooy nit ñi ci seen biir ñu def. politique boo xam ne ci détenu yi ñu am chef de chambre chef de cour bi ñoom ñuy mën a mel ni lu yor seen benn gouvernement ci biir loolu mooy dynamique loolu réussir mais ba pare am gëdda maanaam fexe ba pénitencier yi duñ ami caaxaan xam nga kooku dul ami caaxaan bu fekkoon ne teg nga fa Ousmane ñàpp boo xam ne mën na laa faral boo ko defloo dara mu def la hmm. noonu la ay nit mën a nekk yoo xam ne bu leen Ousmane Sonko ne filmé moom ñu filmé ko wala ñu bàyyi zoram jàll dem ba filmé hmm. mais comme dañoo mat boo leen bëggee def loolu dul noonu yow duñ la ko defal mais bu leen ko opposition bëggoon a defal duñ ko léegi nag hmm. yow ni nga mel bu doon yow loolu ngay def moom nga àttee defe na yow pénitencier yi noonu la ñuy def ba tax ngay génne ay circulaire di jéema a xuppa ko looloo nàngam ak nàngam mm-hmm. voilà fii lañ leen jaar xam nga dafa am ñoo xam ne buñ jubadee dañuy neex a jàpp euh, suñ bàyyi Lamine Ndiaye ca jamonoy tey daa am benn théâtre bu mu doon mm-hmm. def ak euh, suñu yaay Rama Thiam Rama mm-hmm. Thiam moo doon aaw bi mu takkal ko ñaareel ñu nekk ci néeg bi suñ kiyee mu leen yëddu xol baay fiir di baax bu leen di yëddu ñu xam ne ñu dem ba xam ne da leen di yëddu mhm. Lamine Ndiaye ne ko ah bàyyi ko rek ndayam lañ ma tàggee léegi damaa xam ne guddi ci guddi lañ nekk mhm. bëgguma koy wax mu mhm. yàqi nelawam léegi damaa bëgg subaa ma wax ko rek arama yuuxu wooy yaay yaay ñu ñëw jàpp lan la lan mu ne damaa jaar nii jaar nii rek dégg ñu ne sa yaay dee na loolu la leen waa Pastef def keroog Amadou Ba xëy rek kii affaire bi Ousmane Sonko naa ba pare di leen man nee naa Amadou Ba dinaa rey ñii di. <laughs> gaa yi liggéey dimanche ci saa si man xaw ma kañ lañ fonk liggéey noonu. ah ñu man de damay liggéey dimanche. ci saa si waa ji wu directeur de communication directrice de communication wu Diomaye Aïssata nekk directrice de com moom marketing moo def marketing. dafa def marketing publication bi. daanaka publication bi maa la ko wax. gaa yi ñëw nag ne Diomaye attention Diomaye A plus la. aa nangam bu ay bee nangam de aa nangam rek ngay dégg te aa yooyu mën nañoo dellusiwaat ci aa bi. Mhm. maanaam kon yow da nga jàpp ci ni nga ko tënkee. mooy la ma la waxoon ne la waa Pastef dañoo war a def de telle ko que Macky gàllankoor Sonko ak bàyyi ko yem ci moom te gàllankoor ko sax gën a bon ci yow parce que ni ngay foog li nga def yëpp nga def ko. Mhm. pare joomaay euh, gañe demande sociale bi muy nekk mooy rëqal ndiggu Macky après nam nekkee woon defal Karim Wade nangam. donte mhm. bee ci caaxaan rek lañ ko tegoon. Mhm. mais Ousmane Sonko moo la mën a wuutu am état de grâce te gars yi du bañ laa topp te gars yi du ñëw ko lu tax parce que Ousmane dem na ba am loolu yombut nag même Macky Sall amut loolu. Ousmane yegg na lim fi mu yegg Ablaye Wade rek nga ko mënoon a gam-gam leel te est-ce que sax jamono yi ëppale wu ko Ablaye Wade ñu xaar ba yàlla jox ko réew mi. ñu mën ko àtte mais xam naa ne defal ñu def. te hmm. loolu mi ngi tàmbali di am. ci naa bi ci parrainage voilà dem ba parce parce que parce que parce que euh, bon après les chiffres seront seront seront vérifiés ba léegi mais man li nga xamante ne jot naa ko ci ay écho moo xam euh, ci euh, Dakar gi ñu nekk moo xam euh, ci région de Thiès ga ñu ne nekk suñu wet Diourbel Ndar man am naa ay ay nit yoo xamante ne ngi envoyé <laughs> Salih Abdou ci nekk yaa ngi ci jàmm ah salaam ziar naa la maa ngi ci jàmm kay ah, mu ne maa ngi sant yàlla bu baax ne ma lan mais Cissé naka pare naa si ma ngay laaj da di teg xel. yor naa fi yor naa fi 300 yuy jaay. xaar li ma ko toon du ma kii waxam nag. nga dimbali parce que kii sama benn xarit. salaamaaleykum soxna si maa ngi lay a ah 300 parrainage mais malheureusement ñun duñ jënd parrainage au contraire ñun dañ ñuy fay sax doo ko ay xool gars yi waa beneen couleur bi rek couleur couleur couleur mbóot bi. <laughs> <laughs> ñu yem foofu voilà nañu parce que après discussion bi xam nga après lii lan moo ci topp. Mhm. non yéen da ngeen a yéex sax ay doublon ngeen am. maanaam loolu la ma wax <laughs> ngeen yéex ay doublon ngeen am. dëgg ma ne ko ma ne ko. Ah, ne ko nañ ñu xaar rek nañ ñu xaar ni ñu xaaree woon rek yàggatul. mu ne ma pare na nañ leen dix Mhm. amaguñ du maam Diomaye mooy premier bu ñu rek am na ñeneen ak ñeneen nee nañ ñu xaar waaw kay. <laughs> d'accord mais ci chiffre nga man daaru dama teg xam nga. Mhm. maanaam li mu may mujj di wax doublon ma ne ko ñun duñu am doublon parce que toog doon la xaar. xam nga moo tax fay bi. Mhm. am solo parce que kii ñëw di fay ba pare pare na la xaalisam boobu muy fay. da lay wóor ne kooku du ñëw di la doubler. dafa efficace te loolu du parti bi ñoo ko dogal de. Mhm. parce que buñ ko dogaloon sax mën nañ leen a jam fenn. Mhm. mais nit ñi xale yi ci top top bi oustaz ceeb borom nalate. <laughs> nalate ba mel ni kafe nalate. Mhm. ba mel ni suukar nalate ba mel ni ceeb. ah mais ci yëngu bi ci yëngu ci yëngu bi mais euh, foofu dama lay wax dafa am lu Pastef am gis naa benn <laughs> vidéo booy yi di ci def vidéo yoo xam ne ay borom réew mi ah ay euh, làmmiñu daaru ñooñu yiñ ciy def di ci wax tax affaire bi tas ngis ku teg benn siis tegaat beneen siis tiim carte d'identité yi mel ni kuy jaay ca marché ba da ngay ñëw joxe am na koo xam ne su mi ngi tooñ nit ñëw di ne mu ne ko ah parrainage da ngay joxe 1000 francs de kooku ne indaale wu weccat xaaral ma dem jëli ko te muy lu dëggu maam Cheikh maa ngi koy ba tey ci tëkkër boobu. Mm-hmm. moom daa jëloon ndek carte bi laxas ko ci mbuus laxasaat ko ci ëmbaat ko ci këyit. jël këmbu si dugal ko ci benn saak ca poos bu ndaw ba jëlaat saak boobu dugal ko ci saak boole ko quarante mille francs Touba te nee na loolu lay loolu lay joxe maanaam loolu lay ne quarante mille yow bu doon 1000 francs léegi ñu am 1 million de parrain xam nga ñaata la. 1 mhm. milliard. léegi ci 1 million de parrain boobu noonu ngay wax ah ce sont des chiffres yi nga xamante ne depuis euh, euh, lundi ngay ñoo ngi ko wax naan ñoom bugguñu ñu ñu ñu laal sax ñett jàpp ñeenti fan te chiffre boobu noonu weesu wuñu ko. Touba mille la démb. maanaam dañoo xëy man fi may naan 10 000. Mhm. Euh, ñu fanaan ci guddi guddi gi la gaa yi tàmbali woon di liggéey. ci guddi gi la gaa yi tàmbali woon. di job léegi léegi chiffre boobu noonu ndax am ngeen yaakaar ne. mu ngeen ko am parce que tey suñu waxee un million un million de parrain mhm. ci Sénégal ni nga xam ne loolu bindoo fichier bi mën nañ ko jàppee comme ay intention de vote maanaam koo xamante ne loolu lañ nar nar nar na léegi mais un million de un million d'électeurs ku ko am nañu wax soo amul quarante pour cent daanaka laa nekk ci cinquante pour cent du sori élection yi maanaam li taxoon bëgguñu woon Ousmane Sonko dem nga xam ne même bu doon dañ ko koy participer parce que dañ ko koy doon jox sax dañu mhm. doon bàyyi ba mu cate nga xam ne parrainage optionnel. député yi rek lay mën a def. mais lii moom laa yàgg a wax man dama ne woon sax suñ demee bu mënta ñàkk. Mhm. nañu jël recours collective yi nañ ko def d'une manière boo xam ne day mel ni parrainage recours collectif mënoo boo mooy idée bi si la amoon. mais bu buñ ko yóbboo ci nit ñi ñu koy signé. Mhm. après ñu xoolee nombre bi loolay mais nit ki mën naa bokk APR sax xam ne lañ teg Ousmane Sonko du yoon nga teg ko mais parrainage bi moo gën man it ba tey nañ ci boole waale recours collectif yi di xawal li joxe parce que xeex moom xeexaale lépp dañ ko waroon a laytaay ak recours collectif yi buñ boo signé bii signé bii. Hmm. bu la neexee gën a xamaale intention yi nu mu demee ak yooyu parce que loolu ko soxla chiffre dañ ko soxla. parce que hmm. moom nga te moom la international bi di daj. Hmm. boo gisee waa ji di mer nii ak di jànnaxe. fala fala fala bëggoon ñu mujjee fas fala sax ñu mujjee parce que moom dama bëgg ñu jeexal ci wàllum parrainage bi Bassirou Diomaye sànq maa ngi ko doon wax ca dañuy suñu weesoo tànneef li nga xam ne moom lañ ko tànn ak chiffres yi nga xamante ne ñu ngi koy commencé avancé le million bi nga xamante ne bëgg nañ ko daal di attendre dafa am loo xam ne ci wàllum yoon ak yoonal ak constitution ñu ngi koy laam-laamee article L57 bi nga xamante ne jamono ji moom lañ gis ne daa am loo xam ne da koo gàll ci ci ci ndoddam ak képp koo xamante ne ne ci bokk na Pastef maanaam ci na mu bokkee na mu na mu na mu bokkee Pastef suñu demee ba àgg élection mun nañ Pastef lan mooy problème bi. maanaam parti parti ba nañ nañ ko tasee. parti buñ ko tasee ku ci bokk mënoo nekk candidat. parce que tey dañ ne parti moo la yóbbu te moom Pastef la bokk. waaw Pastef donc suñ ko tasee Pastef mënul présenter. candidat Madické Niang bokkul woon PDS. waaw. Hmm? Mm-hmm. da nga ne parti moo la woon PDS non mm-hmm. nekkul woon candidat indépendant. waaw nekkul woon waaw voilà maanaam te moom mënul nekk mënul nekk candidat indépendant at. mais dafa jël beneen beneen parti moo ko ngem bu yóbbu ko loolu constitution bi nangu na ko. Mhm. Mhm. kon jàpp ngeen coow loolu nga xam ne mu ngi ci article ni mu nekkee ci kanamu yoon munu ko munu ko. yoon dalay àtte. Mhm. Basiru ba fi ne nii lenn la wuute lenn nga ko ëppale mooy liñ ko teg loxo. ñu euh, teg ko mais li ci des li nga am yëpp am na ko ci droit. te droit la ñuy waxal ndayu àtte ji. du Macky Sall trois la ñuy waxal. d' accord euh, fi ñuy jeexale mooy euh, entretien bi nga xamante ne président euh, de la république dina ko def ak sunu ay confrères yi nga xamante ñoo di waa Jeune Afrique daanaka nag kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko ca Fatick daanaka yenn ya noonu sax la la la la la yeesalaat foofu noonu doon wax naan ñi nga xamante ne tey ñoom la ñuy considérer comme ay détenus politique moom gisewu ko ni ni mel ndax dama jàpp ne ñooñu doon jàppale ñoo xamante ne ñoo bëggoon indi ay ay giraawaale ci biir réew mi. donc euh, dana toj ak yàq alali jàmbur donc moom jàppul ne ñooñu ay euh, ay détenus politique la la leen dal ñoo ko teg seen bopp. xam nga daf du wàcc xam nga lu tax du wàcc. Hmm. parce que xelam du tey. yow boo nee gis lu la lu taq léegi xel dafa am luy réactionné ci yow da ngay wàccu léegi wala nga am noo def. Hmm. am sa xel day tey nga doo ko wàccu. Hmm. mais doof xel mu du tey. moo tax du wàccu xam nga lii la fàng nga ne gisuma mhm. waxuma la taxé ko kii maanaam kii la nu mu tuddati parabole maanaam exemple la ma mhm. lay jox exemple rek ne la nit ki am na foo yëg mhm. maanaam am na loo xam ne dootul la saf moo tax dafa war a ñëwaat fexe ba nitee am si li nga xam ne mooy mooy mooy ak doomu aadama daal ndax jànnaxe weesu te man président Macky Sall jamono yi damaa gis ne dafa jànnaxe lool dama lay jox exemple bi muy wax ci kii nu mu euh, kii nu mu tuddati euh, alphabétisation mu ne suñu langue yi dañ ko war a bind ci caractère latin mais def ko mu compliqué nangam nangam lii du signature président Macky Sall lu xamee nga ko. Mhm. dinaa lu ko jox après nga illustré gis nga. waaw waaw gis naa ko waaw xamee nga lii Abdoulaye Wade la. waaw 2005. 2005 waaw. maanaam 21 octobre pour suñu langue yi. 75 mhm. lañ ko def ñëwaat kiyaat ko euh, Senghor parce que 74 lañ ci doon liggéey ba dugal ko ci suñu kii def ko ci caractère latin. Mhm. ginnaaw bi 75 ñu def décret bi décret bi amaat na beneen bu ko yeesalaat. Mhm. gën koo dàbbali muy Abdou Diouf 85. 2005 Wade 2004 bi Macky Sall nekkee premier ministre ci lañ ci nekk ba 2005 moom moo si signé fii. te xamul ne ña nga ca te dégg ko. maanaam jànnaxe maanaam waa ji liñ ko teg gis na non su ko saay saay gis nga lañ tegoon wàdd bi mu demee <laughs> Louga gars yi te wàdd sax mën nga ne foofu ni ci biir mbooloo bi di ko yuuxoo mel ni Macky doon dem fële rek ñu yabal ay nit ñu topp di ko yuuxoo mhm. gis nga wàdd dafa jànnaxe ba ne jox leen ma mairie bi booy seetaan rubrique Sandio bu naan jox leen boobu moom xamul ne moom moo yor mairie bi mhm. maanaam Périsile la moo doon moo doon maire te PDS la nekkoon Macky Sall loolu moo ko nekk di ko di ko di ko dafa jaxasoo moo tax jamono yi suma ma moom nag amul ko ko ku koo xam ne danaan ko déet bu doon Bruno mi ngi fa ba ndaga ni doon na ci man parce que Bruno ku ku sonn la woon ci yuy demee doon na ci man dara mais bon comme ñi ñu fay teg nii. Mhm. xaw ma nu mu demee bon ñoo xam ne war nañu ne la nangam nga war di wax. Mhm. bon mën naa am sax loolu du liggéeyu Bruno mais doon na ci mën a góor parce que loolu domaine politique la. Mhm. doon na la mën a dimbale parce que suñu taa am na erreur yoo xam ne waru koy def ah ay nit faatu nga naan réccuwuma ci dara. réccu ma ci dara procès boo xam ne yow bi ñu koy def gone gi tuumaalaate kenn rek moo ci defoon ak mat muy capitaine Touré du ma jóg ci di ko jaajëfal. Mhm. enquête gone gi ba xam ne day fen mu ne leen lii jaru di yegg fii day fen ànd ak loolu procureur ba woon ne day yóbbu mbir mi ci yoon lu gën a garaaw la ci def ñu collé ci ay image pornographique yoo xam ne moo tax suñu député yi muri mbalaanu kiir laay ñoo xam ne suñuy représentant lañu ay caaxaan tax ñu mu muri mbalaanuñ kiirlaayu député ak loolu ni mu diise biñ demee ba àtte bay kii capitaine Touré wax na ko nee na ndax mën naa jëlës ñu ne waaw ñu ne dèjà PV bi doon wër du cent bos mhm. ba noppi dañ cee dolli mbir image pornographie ñu ci dolli bokk ci xoolal lii procès caaxaan moo yegg ba rey fi ay luy jege euh, téeméeri bakkan directement ou indirectement mhm. loolu am nga ne réccuwoo ci dara mooy li ma wax sànq dof du wëccu parce que xelam du tey mm-hmm. mais mais maanaam kaddu kaddu yi ni nga xam ne noonu noonu noonu noonu noonu lañ ko noonu lañ ko noonu lañ ko bindee parce que tamit më mën mën nañ parce que euh, ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy ñoom ñooy xeexal ak ak ak yelef ñi nga xam ne ñoom la ñuy considéré comme ay comme ay détenu détenu politique daanaka waxtaan bi ñoom ñoom duñ ci tay waaye ni nga xamante noonu la ñu politiser li nga xamante ne moo di moo di débat bi mais ni nga xamante ne tey noonu noonu la président réagir par rapport à ça jàppoo jàppoo ne moom daanaka xol mu jeex la ca la la ca am tamit bu jeex kan lay tooñ li mu def keroog xam nga mere sa bopp. yow doo doo dugg wax su man a kan changé loolu parce que doo kenn yaag nit ñi yenn bokk yem. Mhm. li nga doon nit ñi la ko fa teg yow surga nit ñi nga war a nekk. Mhm. yow yaay kan bay wax sénégalais yi li nga leen defar maanaam da ngaa mu jéppi sénégalais yi. xam nga Macky ba tey yi may wax nii ba léegi nag muy li ma naan dof du xel mi maanaam joxe exemple la. Mhm. pour wax ne nit dafa am loo xam ne lii ay moment yoo xam ne boo jaxasoo. Mhm. doo wuuteeg nangam ak nangam parce que faaw nga ànd ak sa xel. Mhm. parce que man li ñu wax ci langue nationale te yow nga contre signé ko. Mhm. ba pare jaxasoo nu mel noonu foofu laay laay laay waxee mais xoolal entre Macky Sall ak Sénégalais yi dama lay présenter Sénégal comme jigéen bi rafet ju taaru. yoo xam ne mool na ba bu sëyee keneen takkaat ko. ma sànni ay xob sama mbokk bi biisu ngoone <laughs> xam te dafa wolofe mhm. mu laay bu rafet dër lenn rek mhm. <laughs> woon moom xaj na ma tànte <laughs> mhm. bari baayam booyee ko alal ju bari mu fiix daal nga ñëw nekk jëkkëram mu bàyyee la bisu dimbale ma damay kii nii rek. d'accord mu bàyyee la ne la yaay sama jëkkër de gérer. mais mm-hmm. nga jël mbir mi bu tayee nga ne ko tabax naa fii miir bi ma tabax. Mm-hmm. Euh, un milliard te fekk buñ ko xoolee cent millions la noonu lay demee ko mm-hmm. maanaam tabaxal naa la ne jiili euh, bisu jëndal naa la benn benn bisu. ataay teer <laughs> bi. <laughs> Ah, d'accord teer bi ñëw ne ña biisu ne la ñaata nga ko jëndee biisu mooy askanu Sénégal de jonko ma dal ne la ñaata nga ko jëndee nga ne ko daanaka mille cent milliards. Mm-hmm. biisu bu jëlee machine bi xam ne lii warul woon a romb trois cent cinquante milliards moom waaw est-ce que biisu doo xam ne door nga ko. Mm-hmm. léegi yow sa bilan boobu nga defal biisu mais bilan bi baaxut bilan bi Macky Sall di wax ni. Mm. di ko waxal Sénégal yi baaxut te maa ngi koy démontrer fii. Sénégal daa am fer Falémé mhm. Afrique du Sud tamit am fer turu dëkk bi laay fàtte fa mu ko am mhm. euh, loolu moo ci am sens man dama am sens toog ak Abdou Ndéné Sall ministre euh, ki nekk SENTER directeur SENTER mhm. mu waxal ma boppam ne ma Afrique du Sud six cent train la commandé man quatre cent et quelque la jàppoon comme sama chiffre mais ma ne ko waa xam nga Afrique du ñaata la fay ma ne ko deux mille cent milliards la fay ci six cent train cent boo ko xaajee xaaj bi sax liñ defaree Sénégal daanaka moo koy ëpp. Mhm. Sénégal xam nga ñaata train la am. 15 15 36 kilomètres. mais Afrique du dafa ne waa Alstom ñëw leen biir Afrique du Sud bi ngeen jël sama feer bi mel ni Sénégal. Mhm. ñu ne leen am nañ feeru Salamé Falémé kaay defaree ko sama feer. mais defal ma compétence transférée déedéet bul tabaxee saxaar gi fële de di ko yab ci bato day seer transport bi day seer. te samay waa doomi réew tamit kon duñ liggéey dañuy mbëkk. te boo fi defaree kii dana am lu ëpp ay junniy junniy xale yoo xam ne danañ ci liggéey te danañ ci amaale expérience ba bu ëllëgee kuy defar lu teer. dana fa la ko. Chine mhm. noonu la defoon ba ko Alstom ay société français daan nañ leen defaral train mais parce que am nañ compétence bi des na Chine léegi mën naa defar. Alstom ñu woo ko fële mu defaree ko ci 2500 milliards def transfert de compétence transféré ba noppi utiliser feeru Falémé euh, feeru Afrique du Sud ñun Sénégal ñu ñëw fukki bopp saxaar ak juróom 36 kilomètres daanaka 1400 milliards boobu xaalis bu yàqu ki nga ko defaral xam ko biisu ngoonee xam ne lii nga ko jëndal euh, naa bu baax na wala nangam mais da nga koo dóor mais est-ce que biisu dana la nobati que du loolu mere est-ce que du demande divorce. li ah. tax ñuy wax bisu da ngaa bëri sëy mooy arène nationale na fen Lo tonton Mbaye lañ leen ko ma ne ko déet bàyyi gar mi loolu ay fen la di <laughs> loolu ay kàcc la si farayon Chine ambassadeur Chine fii la ñëw immigré ko ne don la du yaa ngi ko ca gis don de Sénégal don de Chine 8 milliards lañ ca def waa mais ki tojee lu ëpp 24 milliards moom ak ki toj ki toj ki toj 8 milliards ku ku ku dàq toje ku dàq toj maanaam gone yi tey yàlla tere su doon dañuy bëre ca arène ba gars yi mer làmb ju toj ñu tojate stade ba mu ba mokk rumbux xam nga ñaata lañ toj wala 8 milliards waa ki toje vingt ne la 32 milliards la nag 32 milliards yooyu ci suñu budget bu dee génne dañ ko ci euh, day doy waar di kon da kon daal gars yi dañ ñoo toje 24 milliards gars yeewu leen <laughs> d'accord merci. bu kenn toj nag. waaye ñiy ah. xam naa xam naa ñu ñu ñu ñu ba beneen rek. Euh. saa ah, man de saa wolof may seetaan bi nee bu ma wax ne bu tàggatoo waaye tàggatoo ñaanu sëñ Fallou gi. Mm-hmm. boo bëggee ma. aja bismillah ñaanu ah. mm-hmm. bu nekkee ci kaw. Mm-hmm. ne cëng fi suuf. bu nekkee ci suuf. ne ko poulet mu génn. Mm-hmm. su génnee te sori dara du ko jar ne ko ñoreet mu jege. Mm-hmm. su jegee na bari su baree na barkeel. Mm-hmm. su barkeel nañ la jaamu. suñ la jaamoo nangul ñu jaamu gi. soo ñu nanguloo jaamu gi yàlla nañ fi yàgg. suñ fi yàggee ku ñuy xaar yàlla na xaddi. xaar xaddi xafara xàpp dëkk dàkk. ndegam dee mënta ñàkk. ñun daal bu ñuy dee nañ la gëm muy nelaw nga ne ruuseet ruu teg ko fi loxo seexul xadim mu ne nu wàkk boot ne nu du aljana su may wax seexul xadim nag seexul xadim mooy sama seexul xadim mhm. kay taalibe Sidi Asmaali mhm. nay sam seexul xadim mhm. kay taalibe Yeesu Krista nay sam seexul xadim lii mooy Sénégal dañ dund ci bi xam suñu mbaax gii li ci ëpp fi la ko lislaam fekk dolli na ci nag <laughs> li war a nekk li ñu a boole nañ koy xool te bañ di xool li ñuy tàq ku juum ñu xamal ñu juum la bu fekkee ne dangaa ngaa mérité kaso. ñu teg la te mu wàññi garde à vue yu bari yi. kaso bi mu ngi bëgg a nekk bombe. bon marché à retardement bombe à a nekk liñ ci rokkas ëpp na. est-ce que problème mu Sénégal sax mënul tàmbalee foofu toj. parce que lu ëpp tuuru wala fa ko wax. Mhm. mënuñoo jàpp di rokkas di rokkas rek. liberté nit ñi liberté doomu aadama kii daa war a dem fii kii daa war a sëy ak jabaram war a war a jur nangam ak xam nga kii takk jabar. Mhm. doom ji juddu war caa juddoo heure boobu waru koo fekk kaso. ba pare yow boo ko fa continuer di nekk kaso te yàlla ne kii buy faaw mu génn est-ce que yow buy génn dana la jig mën naa génne nu ne de na ma ki moytu. d'accord merci merci xam naa kàddu yooyu nga xam ne sunu gan euh, tey ci suñu émission les grands angles de l'actualité nga xam ne dafa daal di déplacé wu ñëw euh, ba fii nga xam ne moo di ay makaanam doon def moom waxtaan wi euh, seetaan ngeen ko di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne ñu doon seetaan képp koo xam ne yaa ngi doon suivre émission bi rek ñoo lay nuyu di la kontaane bu baax a baax di leen jaajëfal di jox incha allah daje semaine bi di ñëw ci yeneen